aw relâchement bàyyeeku boo xam ne ñëpp a bàyyeeku te loole bokk na ci li nga xam ne dina andi ñetteelu vague ci réewum Sénégal te Sénégal yi nag jamono ji sonn nañu ba maara détaal yi moom Macky Sall ci journal bi daan nay wax ne réew yi nga xam ne ñooy réew yu am doole yi ñooñee nag war nañoo am benn considération ci réew yi nga xam ne ñoo nekk ci déndu Afrique rawatina jàppale leen ci lu jëm ci wàllum vaccin bi ndax réew yi nga xam ne ñoo am doole ñoom ñàkku nañu bay ñàkk li nga xam ne mooy mala yi maanaam animaux yi te jamono joojee Afrique lu toll ci benn pour cent rek ñoo ñàkko tey di réew mi quotidien moom njiitu réew mi di président Macky Sall daat nay wax ne ñi nga xam ne nag ñooy réew yi am doole yi war nañ nag di bàyyee considérer Afrique comme ab bébé yéen a kaay gii di l'info nee na en tout cas ñetteelu vague bi bu ñëwee ci réewum Sénégal na leen leer ne tous coupable ñi nga xam ne ñooy autorités yi waaye nag rawatina ñi nga xam ne ñooy way politique yi ndax bëri na ay manifestation yoo xam ne fan yi ñu génn amal nañ ko fi ndax ki nga xam ne nag mooy ndayi mbili di Macky Sall bëri na ay tournée économique yoo xam ne def na ko ci réew mi te Sall bu génnee mbaboor mi topp ko bëri na na tamit ay meeting yoo xamante ni am na ay yoo xam ne daan nañu ko fi organiser rassemblement bu mag boo xam ne mouvement pour la défense de la démocratie ñoom tamit amal nañ ko fi moo tax journal bi xëy tënk kàddu yëpp ne en tout ba lii am ba desal moo ñetteelu vague bi bu amee ci réewum Sénégal na leen leer ne tous coupable yéene kaay gi de la Tribune nee na li nga xam ne mooy coronavirus maanaam ma ngi menacer Sénégal ndax lu toll si ñetti téeméer ak ñeent fukk ak benn ci ay cas yoo xam am nañu ko ci lu toll ci diirub ñaari fan am na lu toll si ñeent ñoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan am na lu toll si ñaar fukk fukk ak juróom-ñeent ci ay cas grave maanaam ñoo xam ne jamono ji ñoo ngi nekk réanimation yéenekaay gi de L'As xëy nag wax ci touche pas à ma sœur muy ak kuréel goo xam ne ñoom nag dañoo jokkoo di défendre jigéen ñi nga xam ne dañu leen di violer nee nañu manifestation yi nga xam ne moo fi amoon ci weeru mars yi nga xam ne moom la ñu génn bëri na ay rebelle yoo xam ne ñoo ngi woon ci biir manifestation bi yéenekaay gii di Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa journaliste bii di Madiambal Diagne moom nag nga xam ne mooy juge Souleymane Teliko dafa yàq deram ndax bu jógee ne man Madiambal Diagne dama violé ab xale boo xam ne mineur la loolee yàq na sama der waaye nag mbir mi dinaa ko lijjanti dinaa xeex ba su ci pandaw ga te nag li nga xam ne moom lay sàkk maanaam ñu amal ab atte boo xam ne public lay doon sénégalais yëpp ñoo si jot yéen a kaay gi di Vox Populi ñu xëy fekk fa ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum élevage daan nay dalal xelu askanu Sénégal ci ki gi nga xam ne moom la ñu dëgmal nee na maanaam fépp ci Sénégal xar dina fa am beneen bi tamit yi dinañu yomb yéen libération xëy dañu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñooy dikk division des investigations criminelles ñoom nag daan nañuy teg loxo ab cargaison boo xamante ni drogue la yeboon ci fi nga xam ne mooy Soumbédioune na a kaay gi du l'observateur ak source a xëy dañu xibaar naa ñu lu jëm ngir nag ñu bañ a weesu dele bi nga xam ne moo jëm ci promulguer loi bi soppar ñi code électoral bu Sénégal ngir ñu bañ a weesu nag date ba loole moo tax njiitu réew mi di Macky Sall tey jii s altine ji lay amal li nga xam ne mooy conseil des ministres bi yéen a kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa député Théodore Monteil bokk ci mouvance présidentielle nee na loi bi nga xam ne moom la ñu voté fan yi ñu génn jëm ci wàllum xeex terrorisme amul benn yoon boo xam ne visé na li nga xam ne mooy manifestation politique yi yéen kaay gi du source a xëy duñu xibaar naan ñu élève bi nga xam ne moom la ñu faatoon fan yi ñu génn ginnaaw am match de football bu doon am ci benn lycée bu nekk Parcelles Assainies unité 13 ki nga xam ne nag moom lañ jox xar bi baaraamu tuuma jàpp ne moo def giraawali gi am na ay kàddu yoo xam ne yëkkati na ko ci kanamu enquêteurs yi bi ñu ko laajee nee na moom ak ki nga xam ne moo ñàkk bakkan maanaam dañoo kooraakoor ñoom ñaara dañoo songante mu daal di koy mboot bi ma ko mbootee ci la daanu ci perron bi yéen kaay gi di Les Échos kuréel gii nga xam ne mooy LGBT ñoom nag nee nañu dal góor jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci senegal bu leen yox yoxi maanaam bu ñu leen fitnaale bay boo ngeen riposté ba pare nag kuréel gii nga xam ne mooy LGBT ñoom nag dañoo wax ne yenn ci imam ci Sénégal ay terroriste lañu yéen kaay gi di Stades xëy di ñu xibaar naan ñu Ghana Football Awards ñoom nag daan nañuy décorer ki nga xam ne mooy Edouard Mendy def ko nag